ma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 nuurul daare ni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq ngeen baal ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc te yàlla di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñuy mbokk yëpp nag di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla liggéey bu sell bi mënu boole ñu ci liggéeyal sëñ bi rek yàlla ko yàlla nangu fulal ñu ko fajal ñu ci suñu aajo zahira wa baatina di jaay sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam may nu ci gudd gi fan ak wér fekke ak tal ak mujj gu rafet ak xéwal gu koy suñu gu ñu jëriñoo ci liggéeyal ci euh, lislaam di jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa di siyaare mbokk yépp nag euh, kilifa yi ci biir boroom xam-xam yi jëwriñ yi alxuraan yi euh, ñu nuy defal ay njàngale mu am solo moomu leçon yu am solo yooyu ñëpp daal ak soxna yi ci biir yëpp daal ñu leen siyaare di leen dokkeel ñaan yàlla lu mu ñu si jaamu yàlla kon ñuy dellu ci liggéey bu sell bi rek muy fatwa bi liñ ci cërale xañ na émission bi eh, day xaw di sore lool waaye nag noonu rek lay demee ndax eh, diine moom noonu lay demee eh, day fekk ne dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne xañ na nit ki am na loo xam ne sax manqué na ci ni war a jaamu yàlla waaye am xelam du dajagun mu laaj ko waaye saabu bu ma demee rek su ko yàlla dafa defalee tawxi bu ko xamul rek da koy daal di mën a laaj kon laaj bi ñu fi jëkk am tey muy jóge ci soxna si soxna ma njaay ñoo ngi koy seer bu baax a baax nam nañ ko gën nañ ko dégg waaye xam naa yitte jamono ji rek moom dafay laaj ne dafa am mbokk moo xam ne daal buy julli ci biir julli gi seytaane day ñëw nekk ci am xelam di ko jax jaxe di yàq am xelam ba tax muy jaxase julli ga wala mu di ko bëgg a yàq bu ko defee ne ne su su ko loolu dikkalee nag day wax aoudu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al azim daal tufli ci ñaari mbaggam muy laaj nag loolu mooy lan moo dem atteem ci biir julli gi loolu soxna si liñ ko ci wax mooy loolu yàqul ci julli gi dara maanaam lu mën a nekk la ndax loolu Cheikh Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa da ko doon digle ci kuy julli loolu dikkal la nga xam ne mas na ko dénk kenn ci saxaaba yi nga xam ne loolu dalan na ko mu ñëw wakk ko loo tax dañ ne faman istaaza rakian aw sajidan lam tabtul salaatuhu amidan aw saahiyan dañ ne ku nekk ci biir ak julli moo xam foo mën a toll ci julli ga moo xam da ngay rukoo wala dangay ngay sujjóot wala ngay taxaw euh, saytaane dikk ci sam xel bi da jax-jaxe nga musul ci saytaane ne ne musul googu ngay musul saytaane ci biir julli gi soo ko tayee ak soo ko tayut euh, yépp ñoo yem loolu yàqu julli ga fa tushrau al istiazatu ida labisa sheytaanu alal musalli salaatahu ne ne kon wax awuzu billahi mina sheytaani rajim ci biir ak julli ne ne loolu charia nungu na ko teg na ko su fekkee ni kiy julli seytaane da ko dikkal ci biir julli gi maanaam di jaxase jullim googu kama arshada nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ila dhalika anna usman ibn abi al-as ata nabiya fa xaala yaa rasulallahi inna sheytaana qad xaala bayni wa bayna salaati wa qiraati yalbisuha alayya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaaka sheytaanu fa ida axsastahu fa taawaz billahi minhu watful ala yasaarika halakan fa faaltu zalika fa azhabahu llahu anni li may wax nii ab xaddis la boo xam ne bii seydna Muhammad moo ko waxan saxaabi bi ma wax léegi muy ku ñu wax Usmaan ibnu Abil Aas ne ne dafa mas a ñëw ci seydna Muhammad daal di wax seydna Muhammad ne ko yow yonent bi yàlla bi day man seytaane daal dama doon julli waaye mu jaar sama diggante ak julli gi ba mënatumaa jàng waaye ponk yi ci yi jullit yu ci bari mënatuma koo def maanaam mu yàq sama julli daal Seydina Muhammad ne ko kooku seytaane la kooku mooy noonu mi nga xam ne bii fu nit ki di defe lu baax rek rawatina ci biir ak julli mu ñëw di ko jax jaxe daal di ko ne loolu fu la dalate ci biir julli gi na nga daal ci yàlla maanaam na nga ñaan yàlla musal la ci moom waaye itam soo musuloo ci seytaane moom ba noppi da ngay tufli ci sa wetak ndeyjoor eh, ci sa wetak càmmeñ la dangay ngay tufli ci sa wetak càmmeñ ñetti yoon ne ne Usmaan ibnu Aas ne ne bi ma Seydina Muhammad waxee loolu su ma demee di julli léegi saabu bu ñëwee di ma jax-jaxa rek ma daal di muslu ci yàlla ci moom ñetti yoon daal di tufli ci sama wetak càmmeñ ne ne loolu moo ma doon bëgg a yàqal sama julli gi daal dañ ci man kon loolu it lañ fay dolli soxna si dana day tufli ci e, ndeyjooram ak càmmiñam waaye xaddis bi daan moonoom li sunna wax mooy maanaam soo mosuloo ci seytaane ñetti yoon ci sa wet ak càmmiñ ci ngay tufli loolu la xaddis bi indi beneen laajam bi ci toppaat soxna Fatimatu Njaay day wax lan mooy atteeb kiy julli fàtte taay taay bu jëkk am kiy julli te taay wu taay bu jëkk ci da ko fàtte loolu dañ ko naa it euh, fàtte ab taay bu jëkk ci julli maanaam du yàq julli ga du yàq julli waaye daa am lu ñu koy defe nag loolu la ne laa yëpp laa yubtilu salaata euh, fàtte ab taaye du yàq julli ga wa yusjadu lahu li sahwi qabla salaami waaye nag la cay àtte ba mooy ku ko fàtte euh, da ko war a sujjóot bala nga sëlmal bala ngay sëlmal da ngay julli ba julli gi àgg nga taay sa taay bu mujj euh, daa di sujjóot ñaari sujjóot daa di taayawaat doga sëlmal ngir taay boobu nga xam ni danga ko bàyyi tamu doon sunna ak ab toogaay su ko defee waxaytu annaka lam tasjud li sahwi nee nag su fekkee ni danga koo fàtte muy taay bu njëkk boobu fàtte nga ko Euh, waroon koo sujjootal bala ngay sërmal te sujjootaloo ko faqad ixtalafa al fuqahaa fi xukmi salaati dana loolu moom bu la demee ñu nu jàngal fiqh dañoo wuute ci àtte julli maanaam ah, ñu nu jàngal fiqh dañ ne euh, fa minhum man yara annaha saxihatun am na ci ñu nu jàngal fiqh ne nañu kooku euh, fàtte taay boobu te sujjootu ko ñoom ne nañ julli ga du ca yàq dara maanaam julli ga wér na waaye tamit am na ci ñoo xam ne ñii dañ ne bu bàyyee sujjóot boobu bañ ko sujjóot maanaam julli ga da ko war a baamuwaat kon loolu euh, ci tomb boobu la ci boroom xam-xam yi amee ak wuute ñenn ñi daal ne nañu bàyyi sujjóot boobu moo waroon a sujjóot du yàq julli ga waaye du waral muy baamuwaat julli ga waaye am na ci ñoom it ñu wax ne euh, loolu ku ko def da euh, nga war a baamuwaat julli ga yeneen laaj yi ci topp soxna Xadi Ñaŋ ñu ko fi yónnee moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel ci farloom ak bëggam lu baax jaamu yàlla moom day laaj waxtu salaati duha wa du rakaati Xadi Ñaŋ day laaj jullik tisba ay jullik yoor yoor wan waxtu lay tàmbali waaye tamit jullik yoor yoor Eh, ñaata rakkaa la war a doon loolu dañ koy wax ni ko waxtu salaati duha yamtaddu ila saatin waxtu jullig yoor yoor moom waxtu yu baree bare bare la dafa yaatu jullig yoor yoor ay waxtum dafa yaatu lool lool lool xaytu tu adda baada tifaa shamsi qayda rumxin nen nag li mooy waxtu wi fan la tàmbale mooy saa bu jant bi fenkee ba nga jàkkaarloog jant bi yëg ne tàng na fi mu ne nii rek su boobaa foofu la waxtu julli e, yoor yoor tàmbalee dañ koy nat ci ne bu jant bi fenkee daal ba tolloo ko euh, ab xeej ab xeej nag xam naa bu ñu waxee bu ñu yema rek nekk maanaam lu toll lépp gopp wala lu mu bañ koo mat sax waaye daal waxtu wér daal mooy saaboo boo jàkkaarloog jant bi gis ne moom fenk na ba naajam bi génn na nga yëg tàngaay bi ne foofu la waxtu julli eh, yoor yoor tàmbalee ba kere ñuy waaji julli tisbaar loolu tax mu ne waxtoom yi dafa bari lool mu ne wa xatta yaqruba waxtu zuhri bi xabli bi xalilin xabla azani zuhri ne foofu lay tàmbalee continuer ngay mën di julli julli yoor yoor ba kera tisbaar di waaj a jot nga xam ne bala ñu noodu tisbaar nag eh, foofa lay yem waaye nag sori teg tisbaar daa man nga koy julli ci waxtu yooyu ba kere ñuy bëgga a noddal julli tisbaar gi su boobaa foofu la waxtu yem ab atteem nag muy julli yor yoon moom sunna su dëgëra dëgër mooy sunnatun mu akkadatun Seydina Muhammad da ko daa def di ko digal saxaaba ni di ko def li ma rakkaay julli gi yor yor itam nee na alalu rakaatiha aqalluha rakaataani wa awsatuha arbau rakaatin wa afdaluha samaanu rakaatin masna masna ne bu dee ci lim bala maanaam ñaati rakka ñaari ñaati rakka la julli jullik yoor yoor eh, ne ne julli gi la gën a néew ci ay rakka mooy ñaari rakka waaye ne la ca digg doomu maanaam bi ci topp muy ñeenti rakka wala euh, juróom benn raka wala juróom ñetti raka fii daal na ne xadis euh, yi gën a siiw maanaam julli gi yoroon nañ mi ngi tàmbale ji nga di ñaari raka ba soo mënee julli juróom ñetti raka juróom ñetti raka nag li ci ëpp mu lañu fa lañu yem fa la yem ñu bañ ko caa weesu kon bu la neexee man ngay def saa su waxtu woowu ñëwee nga julli ñaari raka sëlmal wala nga julli ñeenti rakka yoo xam ne yi moom itam ñaari ñaar nga ko julli soo jullee ñaari rakka taay sëlmal julliwaat ñaari rakka sëlmal wala nga di ko julli juróom benn rakka yoo xam ne itam ñaar ñaar koy def nga di ko julli juróom ñetti yoo xam ne yi moom itam par ñaar nga koy def di sëlmal kon li rakka yi daal noonu la ñaari rakka wala ñeent wala juróom benn wala juróom ñett kon loolu daal mooy li nga xam ne moo fi ñëwoon ci fatwa bi tey ñu yal nañu yàlla doon defal tawfiq jaysina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ما ذاك يودا وهو ذاك يودا لا يودا فتاوى